yow lan la. looy fotowaat loolu la. yow lan la. dama la laaj dama la laaj. bu ma laaj de. dama la laaj sérieusement wallaahi laaj moom lu bon moom marque bi. <coughs> salle bi may entraîné def sport. ok mi ngi nekkee Zac Baaw. Euh, waaw rond point express. ok yow léegi marque bi da nga ko sol nii pour foog ngay entraîné quoi. pour foog ngay entraîné. saa entraîné et puis moom sama sama sama frère la sama xarit la sama grand la. la moo tax nga entraîné pour jigéen wala pour femme. waaye mais entraînez entraîner pour pour santé pour wér yaram. pour Kani. entraînez-vous pour la santé. tu t'entraînes pour pas pour la pas pour le papa, pour eh. physique. ni pour. Euh, tu t'entraînes pour Kani. waaw bon Kani, xam nga dafa am doole foo ma entraîner. yooyu eh, moo tax nga entraîner. non Kany taxul. dama damay entraîner pour bëgg am wér yaram ak forme physique bu naaj. mais Kany si la bokkal tuuti. non non bokk si. temps yi la ci bokkule léegi mu <laughs>